ay aayaat quraaniya yu bari nag rot na ci di ci ñaax jaam bi ñi koy waññi sax nee nañ ëpp na ñaari téeméer ak juróom fukk lu bari daal la ca waaye bu ci nekk nag ak tolluwaay yëpp kami muy waxal am na fu muy waxee ne ittaqullaha xaqa tuqaatih na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal loolu kum jafe ba mu ne kenn mënu ko mu fa waat fattaqullaha mastataatum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 gëmmentu ne gam yeewuwaat jàppaat kattan gam amoon loolu mu daq ci nelaw waaye ku dem ba yor lu ne gàññ gàññalaat te balaa balaa nelaw dañ koo pikiir wala ñu jox ko ay doom yooyu nelaw moom tuddul su nelaw neexatul dañ laa daan jël pikiir la daan laa daan jël moo tax yàlla noonu yàlla dafa wa te musul ñu seytaane mi nga xam ne fu mu kuy dem bu ko jiitoo mu jéem koo téqatal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 وهذا